monsieur le ministre Aliou Sall bi nga xam ne tey dafa ñëw au niveau de Sénégal numérique pour mën a waxtaan ak personnel bi nga xamante ne moo fi nekk pour xool li nga xam ne moom la Sénégal numérique mën a occuper une place beaucoup plus importante ci liggéey bi nga xam ne euh, le président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, wax na ko euh, pour lépp loo xamante ne dafa nekk procédure administrative démb ñu ko doon defee ak këyit donc tey ñu war ko mën a def ci xarale yi yees yi. ñu commencé ko tey ci suba à Colobane bu ñu fa jógee ñu dem euh, Technopole euh, ñu mujjee ko fii ci data center bi. visite bi nag lu ñu si jàngat mooy euh, mooy bu ñu nga xamee ne jël nañu contact ak directeurs yi ak ñi nga xam ne ñooy responsable l'idée c'était de rencontrer ñi nga xam ne ñooy travailler au quotidien parce que jàpp nañ ne politique bu ñu war a teg tey Sénégal ñi koy porter mooy les travailleurs d'abord moo tax ñëwoon xool seen condition de travail. xool ci yan jumtukaay la ñuy utiliser xool aussi yan condition de travail la ñu nekkee pour mën ci apporter des des des solutions. et incha allah avec les équipes on va essayer de euh, de de de de, de vraiment s'appuyer là-dessus euh, pour euh, liggéey bi nga xam ne moom le président. Euh, ñu sant en termes de d'innovation en termes de sécurité en termes de souveraineté numérique ñu mën ko apporter dans les meilleurs délais incha allah